mais ki yor yi milliard ba pare di sol ay ay percal comme sëñ Saliou kooku déggu kooku moo dëddu kon li ma bëgg wax mooy Habib moom dafa dem fa fa kees ga nekk te musta laal kees gi wala génneeguñu benn rapport buy wane ne laal na kees gi te ay nawleem ñu épinglé leen ci kees gi kër yi Habib si bokk ci woon te bi Ablaye Wade di daanu moo nekkoon chef de cabinet Ablaye Wade mosoo dégg ñu épinglé ko yaa ngi dégg il faut ñu siwaat xam ne Ousmane tëbul rek def choix ci Habib nii ci riirandoo wala ci coowandoo affaire système nag laa lay wax système man li ma ci gëm. buy dafa mel ni ni ko patriote comprendre. non déggee ko noonu. noonu lañ ko génnee benn patriote mooy ni mariage bi àndul. loolu xam nga mooy lan. ñi bëgg a jaxase xelu nit ñi. Ah. yàq deru Habib parce que dañoo tiit ci Habib. ah ñoom dañoo wéeru. dañoo wéeru ci waxu xam nga li dafa sérieux quoi lay relance rek nag yow sama xarit mais bëgguma ñu def euh, non defuñu dama bëgg nga déglu ma parce que li may wax dafa sérieux dama lay relance rek ci li nga xamante ne yow soo ko waxee dama lay wax ñoom fan la ñuy wéeru ndax ci ay waxi Ousmane Sonko ci jamono bi da wax ne duñ duñu duñu ay alliance bi muy wax naan ay coalition dañuy mujj kon amul amul benn sénégalais bu ma mën a génneel vidéo bu Ousmane Sonko waxee ni système joxoñ nit Ousmane Sonko li wax ci système dafa leer biñ ko ci laajee dañuy système doxalin la tëralin la mais système du nit hmm. Ousmane Sonko mii ñuy wax nii système bee ko formé école bee ko jàngal mu nekkoon impôt et domaine. waaye doxalinam moo wuuteeg doxalin système bi te Habib bi mu ñëwee waxul lu bees dañu hmm. man bu Ousmane Sonko bokkee damay retirer sama candidat su bokkul dinaa porter projet am loolu wax bu ko gën a leer amul yemu ci mu ni damay def transition jox Ousmane Sonko réew mi ñun ñi ànd ak Ousmane Sonko loolu convaincre nañu man de loolu convaincre na ma keneen kum neex na nga takki rajo wax ba xëm mënuñoo fexe bañ bàyyi abib Habib sunu doyen la sunu papa la nañ ko te ñu ngi ko teg sunu wet Macky Sall def na lu nekk pour jënd ko mu bañ. Hmm. Ablaye Wade woo na ko guddeeg bëccëg mu bañ nekk ci wetu Ousmane Sonko Ablaye Wade bi Karim Wade waree ñëw ki mu njëkk a contacter pour mu ñëw nekk ci wetu Karim c'est Habib Sy Habib rejeté ko à cause de Ousmane Sonko man je parle en connaissance de cause kon ñun li ñu gis ci Habib ba tànn ko ñoo ko xam te ñun nekkuñu ci logique logique bii de xam nga Habib waxaguñ ni mooy suñu candidat parce que amaguñ mais dafa bokk ci ñi ñi suñuy candidat bàyyi xel Jomaay taxaw nekk bokk suñuy candidat Cheikh Tidiane Dieye bokk ci buñ demee ba gis ni ba gis ni Ousmane Sonko ñii liñ bëgg def nañ ko bu boobaa ku Ousmane Sonko joxoñ ku joxoñ dinañ ànd ak moom dugal ko pare sans condition nag. moo tax foofu laay lu tax foofu laa bëgg woo patriotes yi. patriotes yi bu leen kenn dugal ci débat yooyu. yéen da ngeen am leader bu ñuy wax Ousmane Sonko muy gor di jullit. ànd ak yéen lépp lu mu leen mus a wax moo leen ci jiitu bu leen déglu ma Samba wala ma Demba hmm. Ousmane Sonko tey bu ne woon ànd leen ak Amadou Ba Amadou Ba. <laughs> bu bennoo bu bennoo ñun ñu dem ànd ak moom. waaw foofu lañ toll ñun. est que loolu leer na. kon ñii ruubee nañu arrêté ñun lépp luñ mus a wax assumer nañ ko. Hmm. képp ku ñu àndal assumer nañ ko parce que. ñii ñu àndal tey ba leen di def ay candidat ñoom nguur gi ñoom ñoo ñu ko imposer. Hmm. waaye buñ ñu bàyyi woon ak suñ sago rek Ousmane Sonko la ñuy jël. Hmm. def ko suñ candidat. moo tax débat boobu waaw débat boobu. dama ciy wax ñëpp. boo seetloo dañoo dañ leen di nangul nag seen xalaat. kenn ku ne hmm. ci démocratie lañ nekk. waaye man de ni ma xamee Ousmane Sonko. ak ni ma xamee stratégie bi mu am. li tax mu def jël choix am def ko ci Habib jox ko ay député am. Hmm. moo ak Habib la waxante ñoom ñaar lu leer la te lu luñ fas yéenee appliqué la li ci kanam nag raw li bët. oui mais ci ñi ñuy tudd ñëpp dama ciy déggul Déthié. Déthié Fall. waaw man Déthié euh, Déthié bokku ci. man yéen euh, bokkoon man laa wax yëguma ko bokk Déthié damaa jàpp ni candidat boppam la mu ngi nag biir yeewi askan wi suñu allié la. Hmm. waaye bu ñuy wax candidat wu yi nga xam ne nii ay candidat wu Ousmane Sonko lañ. Hmm. honnêtement bu fekkee ne am na tamit yëguma ko Déthié damaa jàpp ne moom candidat la bu ñu respecté tamit ñu bokkoon nag moom allié mu nekk ku sérieux di wutal boppam. waaye ah, di wutal boppam waaw amal boppam ñu ngi koy félicité ci parrainage am. Hmm. waaye Cheikh Tidiane Dièye moom ku ne xam na ni. ah fu Sonko jëm fa la jëm. Habib Sy fu Sonko jëm fa la jëm. Habib Sy Diomaye Faye fu Sonko jëm fa la jëm hmm. ah li may wax ji. mais Déthié Fall fi Sonko jëm jëmu fa. non maanaam ëllëg xëy na bu ñu demoon ba deuxième tour mën nañoo ànd. mais ci li ma yaakaar mooy premier tour Déthié Fall day dëggal boppam. ci loolu laa yaakaar ba koroog may gis le contraire. Hmm. waaw. mais Déthié Déthié it maa ngi koy féliciter ci parrainage bi vraiment di wax ni moom it ku am mérite la ku yàgg taxaw di xeex ci ci ci ci ci ci noteel. Hmm. ak ak ak ak ak tooñ gi nga xam ni ñu ngi koy teg Sénégalais yi. loolu kenn mënu ko wax kenn mënu kenn mënul wax ci ci réew mi tey injustice te moom te moom doo ko tudd parce que bi bi mu gisee ni injustice am na ci wetu Ousmane Sonko dafa ñëw taxaw ci wetam terewu ko nag mu am projet boppam bu mu porteel boppam nangul nañ ko ko. Ah. ok kon loolu mooy. Ah. soo nee mm-hmm. usman Sonko fu mu joxo ñun foofu la. mooy ah. ni pareegut kon. dafa joxe message démb rek. pour dalal xelu patriote yi ne leen génn leen ci lii te taxawee na le. message léegi kon dafa dafa dafa di kon dina xaaraat ngir xam jomaay fan lay mujj. waaw mais combat bi jeexagul xam nga ñoom yeneen taxawaay xam nga Ousmane Sonko day nekk le roi. le roi wala mu nekk le faiseur. de roi day falu wala mu fale ñaar yooyu moo fi nekk choix amatul ci ñoom ñoom nag ñooy tànn ku leen di daan. ñun daal tegal nañ leen ñetti mbër ñoom ñoo xoola bu leen neexee Ousmane Sonko daan leen mu gën a rafet bu leen neexee plein wu Ousmane Sonko daan leen mu gën a ñaaw yaa ngi dégg xam nga le message bi mu def démb message la boobu laa bëgg a ñëw dafa fàtte ni yi enjeu yi enjeu yi nekkatul ñu nekk di werante suñu biir enjeu yi nekkatul ñu bëgg ñoo fantasiroo ci loo xam ne ay caaxaan la ñun li ñu dëgmal tey dañoo dëgmal ni dafa am sunu ay mbokk yu ñu àndaloon ci xeex bi ñu faatu ñooñu bu ñu tëddee dañoo war a tàlli dafa am sunuy nawle yu ñu àndaloon ñu jàpp leen génn dugal leen ci kaso bi dañoo war a pour génne leen ci kaso bi dafa am kenn ku ñuy wax Ousmane Sonko mu incarné woon espoir ñu jaay ko doole dugal ko ci kaso bi kon dañoo war a bàyyi xel kooku bàyyi ko xel nag mooy ñu dem ci essentiel ñu fukkis ci li nga xam ni mooy essentiel. essentiel mooy dem jëli suñuy di d'identité ba téye ko yor ko suñu poos essentiel mooy kenn ku ne dem fa fichier électoral bi nekk nga xool ba xam sa tur mu ngi ci fichier bi wala nekku ci loolu boo jaaree ci internet bi di nga ko mën. oui Sénat d'ailleurs mu ngi ciy rappelé ah. ngi dégg ñu bëri ñoo xam te ñu ngi dugg. loolu mooy les di xamal ni loolu mooy les vrais débats pas Ousmane. waaye débat yii ñu ñu bëgg indil duñ ci dugg ay système ak anti système ñu nekkuñu ci. ah ci ngeen ne de. non moo tax man définiral naa la système waaw waaw man définiral naa la système mais yoo xam nga ni débat boobu mu ngi existé ci biir patriote yi. mais mais mais mais parce que am nga ñoom choix yooyu ñu koy apprécier ku ne ni nga ko déggee. am nga patriote yi moom dama la dama la ci wax rek. yi xam nga ci lan lañ nekk. Hmm. déglu Ousmane Sonko fu mu leen jëmee ñu jëm fa. teewul ñu ngi man mënoo maa génne ci patriote yi. waaw ñu ngi maa ngi nii di ko déglu bu nee départ leen ñu départ bu nee toog leen ñu toog ñun foofu lañ nekk ñeneen ñee ñu bëgg a yóbbu feneen euh. parce que nit bu ngeen àndee muy sa kilifa da nga koy doyloo kenn du jiitu imam ci julli imam boo ko li xaamalee ba pare da bàyyi mu dox sa sa digganteeg sa borom te ñun comme Ousmane mooy sunu imam ci julli gi hmm. mooy sunu imam ci politique nañ ko déglu rek patriote yi bu leen kenn dugal ci ay débat wu faux débat déglu leen Ousmane Sonko xam ne Ousmane Sonko mi nga xam ne deux mille vingt et un ba tey ñu ngi ko bëgg a rendi mu continuer di exister ba tey continuer di teg ay stratégie buñ ko dégloo rek du ñu juum. Hmm. démb avocats wax nañ ko biñ ñëwee di di stressé wu dañ dañoo ñëw fekk ko ci biir kaso bi mu mu mu muy mu mu soulager leen dalal seen xel féliciter leen ci taxawaay bi ñu am wan leen ni le combat est loin d'être terminé combat bi day soog a commencer. Sénégal yemul deux mille vingt quatre li am solo après le vingt cinq mars wala le vingt six mars ci ëllëg sa. Hmm, vingt xoola vingt six février deux mille vingt quatre Ousmane Sonko sera au pouvoir. nan la ci nan lay duggee ci pouvoir nag. maam yaa ngi propagande. non propagande moom waaw mais sera au pouvoir loolu laa gëm man parce que le peuple sénégalais ñoom ñooy fale.